jëf Mbok ñu tàmm di ñu top ci plateau face à mourides point ñu am comme invité monsieur Boubacar Camara ancien inspecteur général d'État ancien soldat de deuxième classe docteur en droit et avocat au barreau de Paris expert maritime et ancien directeur général des douanes ci bir lolu duñ def lu dul euh, monsieur Camara nuyo ak suñ mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñooy di top sen plateau face à mourides point info jërë mbokk yi seen mbokk Boubacar Camara mooy nuyu ak yéen nekk président mouvement jéngu ngir jëriñ Sénégal. jërëjëf monsieur Camara ci nuyoo boobu nga nuyoo suñu mbokk téléspectateurs yi ci seen plateau fastmourides.info ñu gis ne que def nga benn engagement politique moo xam ne nga gis nañ ko si à travers la presse bu yàggul rek nga jël engagement de politique. Mm-hmm. ana lan moo poussé. monsieur Camara euh, jërëjëf ci laaj bi ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne suñu réew daf ñu defal lépp jàngal ñu fi euh, ñu duggee fi daara solo fi soldaar def fi lépp jaar ci école yi nga xam ne yi euh, suñuy waajur daawuñu fay ba mu jural ñu as tuut ci xam-xam jural ñu it ab tuut as tuut cib yar euh, mën a am ay liggéey yu bare ñu sant ci nguur gi mu jaral ñu aussi ñu takk sunu ndigg di liggéeyal sunu réew mu jural ñu ñu mën a am nu ñu jaaye sunu xam-xam ci bitim réew ak ci privé bi donc état bi daan na jur ay doom yoo xam ne yi daf leen daan former ñu jàng mu wutal leen liggéey ñu mun a tedd teral seen waajur teral seen communauté dañu dem nag ba gis ni état bi doon produir loolu produire du ko li ñu gën a seetlu daal mu fës ci at yi ci wàllu état mooy ñaar benn bi dafa nekk benn jumtukaay boo xam ne eh, ñi koy nànk dañ koy jëriñoo ngir seeni koomu bopp seen alalu bopp ak seen famille ñaareel bi ñu koy euh, jëriñoo def ko xeetu jaas yi bu ñuy xeexee ñu koy xeexante seen biir di tëjante foofu nag bu fa réew tolloo képp koo xam ne kii ameel nga njukkeel réew mi danga war a taxaw pour euh, wax liñ ci xalaat taxaw jëf ba loolu mën a dakk ba Sénégal mën a tegu ci yoon yoo xam ne ñépp dinañ ci gis seen bopp loolu moo waral ñu engagé wu ci politique jël baatub jëngu def ko suñu bàkk jëngu ngir jëriñ Sénégal. jërëjëf euh, monsieur Camara ci leeral am solo yooyu ndax mouvement jëngu am na benn projet de société moo xam ne ne tey mettre na ko en place wala mu mu ci toll. waaw boo demee ba nag dugg ci mbiru politique da nga war a am euh, ay naal yoo def ngir ne lii fi ne baaxul baaxul euh, nii lay taxawee. naal boobu am nañ ko sunu naal euh, suñu koy tënk ci gis-gis mooy fexe ba senegal naat naat boo xam ne dafay jóge ci doomu senegal doomu Sénégal yu xarañ xarañ nag mooy nga wér da fay wér ba pare jàng xam sa aada xam say diine xam say valeuru ñi nga xam ne ñoom ñoo fonde sa réew boo amee loolu ba pare nag nga mën a fexe ba li nekk ci alal ci réew mi nekk ci jaww ji nekk ci suuf si nekk partout ci géej gi ñu mën ko jël euh, togg ko ba mu mën a amal njëriñ waa réew mi yépp ba nga xam ne euh, ñépp dinañ ci gis seen bopp loolu nag boo ko bëggee am dangay dooleel juróomi acteur maanaam juróomi nit walla juróomi euh, pàcc yoo xam ne dañu am solo ci réew benn bi mooy état état bi ci boppam dafa war a am euh, doole bu koy permettre muy waxtaan ak ñëpp muy bitim réew ak ñëpp di euh, sauvegarder intérêt Sénégal di fexe ba intérêt Sénégal di jiitu ci waxtaan yëpp ñaareel bi mooy entreprise yi ñi nga xam ne dañ jël seen alal dugal ko ci koom ngir mu jur ñuy war a fexe ba wut ay xëy pour xale yeeg ñëpp di ci liggéey ñooñu da ngay fexe ba li ñuy liggéey mën a antu mën a am compétitivité ñetteel bi. mooy liggéeykat liggéeykat bi dangay fexe ba fi muy tàmbalee liggéey ba bi muy retraité mu nekk ci euh, situation bu am solo mën a am kër mën a am euh, xëy bu normal mën a am payoor boo xam ne bii dina tax mu mun a euh, faj ay aajoom ba pare bu retraité nag li gën a am solo mu mun a noppalu waaye retraité di wëri dépense loolu gis nañ ko fii Sénégal donc projet bi day fexe ba ku retraité aussi di nga am benn minimum vieillesse kooku da ngay dooleel travailleur boo paree nag nga dooleel jigéen ñi ak ndaw ñi jigéen ñi da ngay fexe ñu am autonomisation maanaam jigéen bu ne mënal boppam yéen ñëpp xam ngeen coono bi jigéen ñi eh, ci lépp di def ay groupement di ko da ngay fexe ba ñu mun a am doole jeunes yi aussi nga xam ne ñoo ëpp ci réew mi nekk ëllëgu réew mi ñu am doole donc eh, juróomi pàcc yooyu ngay dooleel eh, loolu moom mooy suñu projet loolu nag. ci fànn yëpp lañ ko décliné muy dem ci mbéy mi dem ci napp gi ci sàmm gi ci wàllu euh, transparence yi ci wàllu justice bi yëpp dañ ci am ay programme yoo xam ne euh, tenk nañ ko ba taxaw. jërëjëf euh, gis ne ci ces cinq points yi nga wax sa biir programme bokk na ci dooleel ki nga xam ne mooy employé bi wala secteur public ñu gis coow bi fi am bu yàggul rek mu mel ne benn société. multinational bu ñëw Sénégal implanté wu fi mu nekk en phase avec euh, suñ veillant commerçant yi en tant que homme bi nga xam ne dañoo ci wàllum koom-koom ndax loolu lan la war a mën a jural Sénégal. waaw loolu dafa dafa firndeel euh, ñaari yëf mooy que képp kuy homme d'affaires sénégalais képp kuy liggéeykatu sénégalais dafa am benn kiiraay boo xam ne bii dafa manqué bu la état bi war a defal moo jur homme d'affaires yu mag a mag yi. Ah, mënuñoo jot ci marché yu mag a mag yi loolu déjà ñëpp gis nañ ko lépp luy projet li ci ëpp doole fi mu nekk nii ci ay loxo yi mu nekk ute naag loxo yi nga xam ne yi ñoom ñoo nekk ci euh, réew mi euh, nekk ay doomu réew dëgg la boo yoree réew da ngay fexe ba fépp fu nit mën a indee alal bu jaar yoon bu ñëwee mën na liggéey sa réew mais da nga fexe ba buy liggéey aussi mu mun ko mu ci boole ñi nga xam ne ñoom ñooy am d'affaires sénégalais yi loolu gis ngeen ko ci marché yépp gis ngeen nu ko am d'affaires yi di xeexe loolu tam dafa dem léegi ba law ci euh, liggéeykat yu ndaw yi commerçant yu ndaw ndaw yi nga xam ne seen i taabal la yore woon wala ay yenn yu ndaw mu dem ba nga xam ne dafa am ay structures yu ñëw di leen concurrence loolu nag li ko waral mooy que état bi moom moo organiser wul commerce bi boo yoree réew da ngay organiser commerce bi nga def ay zone de commerce xam ne fii la ñuy jaayee fii la ñuy jaay lii fii la ñuy jaay ku nekk xam place bi nga jaay ba pare moo am ay niveau de commerce niveau de commerce ñii di def gros ñii di def détail ñii di def semi détail et cetera nga organiser ko ba nga xam ne képp ku mun a jógee foo mun a jógee bitim réew wala feneen boo ñëwee di nga fekk commerce bu organisé boo xam ne conditions yi ñu ciy duggee di nga mën a am li ñu ci am te doo yàqal yi nga xam ne ñoo fi nekk loolu nag moom la état bi fayir xam nga affaire wu état nag dafa laaj anticipation maanaam da ngay foog ba pare euh, di di di xalaat loo xam ne ñëwagul boo xalaatee lu ñëwagul nga fexe nag noo koy anticiper mais bu fekkee ne état da dem ba yow li nga ciy xalaat mooy loo jël yóbbu sa kër wala noo koy politiquer wala noo koy xeexee nit doo tal réflexion yooyu te boo talu réflexion yi yëpp daf lay bett foofu la ñu toll ci Sénégal te lii la ñu gisagum yeneen beneen yoon dinañ gis leneen parce que improvisation ak taqale ken du ko yore réew réew c'est trop sérieux dafa nek lo xam dafa am importance lu ñepp bok lo xamné ne ko yoree dafa am noo doxalé té lolu dafa melni mo xaw manké mo soxé ci réew mi euh, ci jamono yi ñi wax. jërëjëf ñu gis né que 4 ans c'est maximum 5 ans ñu ngi wax un Sénégal émergent gis na que soxna si gàddu pañeem di dem marché moom sentir bu loolu yow mi nek un homme bi nga xamné dañu mën ci wàllum koom-koom ko ana na noo ko waaw loolu moom yaa yaakaar naa ne boo laajee eh, sénégalais yi juróomi at yi weesu wala sax ci gannaaw euh, lan la lan loo xam ne lii yokku na ci seen àdduna ci seen vie loo xam ne vraiment am na solo du bare euh, juróomi at yi di ñëw aussi li ñu yaakaar ne mën naa yokk ci mbir yi continuer di demee nii du bare moo tax euh, moom laay wax keroog ne plan Sénégal émergent mën nañu wax sax.

jàmmarloo ak président Yaya Jammeh ndax tey moom war na mën a bañ a appliqué affaire wala bu ko appliqué woon lan la a mën waaw léegi daf loolu dafa am ñaari wax dafa am benn côté boo xam ne affaire droit la affaire droit man du ma sawar sax di ci wax lu bare parce que euh, affaire bi politique da cee lalu ba droit bi dafa xaw a mëdd parce que bu dee affaire droit rek euh, CEDEAO yàgg na fi jox ay décisions yoo xam ne état bi respecté wu ko aujourd'hui Euh, décision bi c'est joxe euh, ni mu ko ni mu ko tëddee dafa dafa ñàkk lèr ñàkk lèr bo xamné bi euh nit ko xamné da nga yaakaar ne procès jaarul yoon da ngay annuler rek né li baxul dañ ko recommence waaye da kii procès bi jaarul yoon dañ ko fay khalifa euh, laajul kenn khalis dafa laaj ñu jaarale ko ci yoon bo né jaarul yoon da ngay faga gal lool ñu ñu recommence ko boko ko waxee day day am palantère boy ubbi pour état mën ci jaar.

mun nga def say enquête sans nga téye ko mais détournement de deniers publics danga war a def mandat de dépôt obligatoire sauf bu contesté bu ne li nga wax du dëgg indi ay argument ñoom indi nañ seen argument nga ne leen seen argument baaxul ca cappaandaw ga nga ne ah, nga ne léegi amul détournement de deniers publics loolu wanewul ne politique moo tax nga téye ñaareel bi kii am nekk député da mu demee ba nekk député kay da nga waroon da nga ko waroon libéré ba pare nga doog a recommencer sa produit procédure

ah di ci fajante ah di ko di ko di ko xeexee loolu bu si réew tolloo rek ñépp dañu war a taxaw euh, mouvement Jéngu ki koy dégg bëgg Jéngu ana yan bunt lañu ko ubbil pour mën see jaar waaw mouvement Jéngu dafa nekk mouvement boo xam ne dafa ubbeeku pour ñëpp bu ñu nee ba constaté loolu dañu woote daal di engagé wu nit ñi ci bëgg a bokk dañuy euh, ñëw bindu comme ñëpp ci comme mouvement yi bindu nekk volontaire volontaire dafa am condition yu ñu laaj condition yi mooy nga mën a indi ay nit yu am ab limu fukk boo amee nag yenn grade yi ak ci say xarañ ak li ngay indi mun nga dem ba nekk délégué boo fa jógee mun nga nekk sentinelle ñi nga xam ne ñii ñoom ñooy rek kënnu mouvement bi loolu ku ci bëgg a dem am na ay numéro téléphone ak ay email ak internet site yoo xam ne boo fi jaaree rek di nga xam ñëw seen siège aussi ñu ngi fii di di organiser wu di ñaan rek jàpp ci. noonu lañ ko fas yéene doxale di waxtaan ak ñëpp nag ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci opposition bi ñu leen di tàllal loxo di waxtaan ak ñoom pour ñu xam naka la ñuy taxawee taxawaay boo xam ne bu ñu ci élection yi euh, dina am ay résultats yoo xam ne dina tax Sénégal mun a tegu ci ay loxo yu wóor loxo yu set pour mën a jëm kanam. jërëjëf tàggatoo rek mooy di ñaan euh, di ñaan sénégalais yëpp ñu xam ne. Euh, dañuy wax toujours ne ku mënul doo lu yàqu yow waaye dañ ci war a teg nii ku mën te defooy yi lu yàqu ci nga te sénégalais yëpp mën nañu mën nañu fexe ba seen réew tegu ci yoon ñu bañ a ne rek politique dafa salte ñu bañ cee bañ a dugg naan du ma voté du ma inscrit du ma def lii du ma def la loolu boo ko defee rek da ngay permettre ñi nga xam ne ñi ñu ngi jël nguur gi di ko defee ñu la neex ñu def lu la neex donc dañuy ñaan sénégalais yi ñu gën a am euh, taxawaay ci wàllu politique politique bu sell boo xam dafa lèr ñu bokk ci wax seen baat wax seen xalaat ba nga xamné kenn dootu leen ñeme def li leen di def ni donc loolu moom mooy daal suñu liggéey moom mooy suñu appel également bu ñuy def pour ñëpp jërëjëf